yàgg wet di xaar tey may wax xalaatam son kaf Ibrahim Méloman on arrive au bout du tunnel là Rewmi Love la demande Yehoun je vous donne de vous le lundi à partir de 21h une heure de temps une heure de folie ñi dikkee xoox yay ju doom la mbokk yi nee naa fees na men dem beles hein. ah man di Yehoun nee naa leen fees na men dem beles ba lundi incha allah ci 21h une heure de temps de folie 21h 22h allez bye ciao les amis les amours oui yaay oui bye We buy Nyaks Gulkur, Nyaks Gulkur. Alive, Jim's alive. Koryala Bino Mustafa. Never mind, never mind. Jim's alive, Jim's alive. Koryala prophète.